koor jotee ñi am doole ñi am doole mën ko ñoo daan sàkk ci seen wërsëg comme suukaro yombul woon te moom la ñu ëppoon lu ñuy utiliser. ñu ni ah joxal sa tante diw suukaru kooram joxal sa baay diw suukaru kooram joxal sa yaay diw suukaru kooram nii la daan tëddee maanaam rafetal la gu mag ñi doon def ci diggante yi. kon kon teraanga boobu ngay wax. waaw est-ce que teraanga boobu eh, eh, Bella nekk na loo xamante ne war nañ koo araamal. non ku la wax dafa araam. ku lax teraanga daa xaram mais ni ñuy débattre suukaru koor Sénégal. non mais nag bii Sénégal bii ñuy def. waaw c'est ah, vrai que yenn suukaru koor yi en fait fi mu ñu ko parce que niveau bi yóbbu. non niveau bi ñu yóbbu bu ñu duggoon ci beneen tamit nga xam ne. mais tey suukaru koor la ñuy gis ku koorul ku wóorul deful dara xaar ba korite jot mu sañ sa taxaw ne koor validé validé <laughs> lu validé lu bari d'accord kooku naxu la yow biisu naxu kenn boppam ne parce que yàlla xam na li xew mais ñun li ñuy wax li ma soxla mais est-ce que li bon man fi ma bëgg a waxee mooy mhm. euh, oustaz est-ce que li bon war nañoo mën a topp war nañu topp train li bon ba mu yóbbaale ñu ñu bañ a def ay teraanga mhm. kenn waxul ñu bañ koo def dama ni la xam nga fan lañ toll fi mu toll <coughs> ci defin wi mais kenn waxul bu ñu ko def ankay teraanga bu rafet la mais ci defin wi ni ko Sénégal di defe bisu am na ñuy joxe suukaru koor ba léegi kilo suukar duñ ko weesu. Mhm. ndeysaan. wallahi ba fii may waxee yow. man xam naa ñoo xam ni gis ñoo xam ni du ñu weesu kilo suukar ci suukaru koor. seen goro lañ koy jox te seen goro lañ koy jox. ah boo yow jàppoon njëkk ba du ñu mel ni bisu mi ngi naan kan yow kii moom la fi mu toll nii fi ngeen bëgg a yóbbu wax ji mooy njëkkee gis nga man ma ci débat boobu. oustaz kàddu mi moom mooy lan cee li nga xamante ni tey soo ko indee joxe kilo suukar. Mhm. mooy li ngay bàyyi ginnaaw mooy kàddu ya ngay bàyyi ginnaaw mais man dama remarqué dara oustaz juste Sénégal mhm. Mm-hmm. que dañuy jël li nga xamante ne tey moom la Kocc Barma wax mm-hmm. ni mooy diine ñu jël la diina ji wax. Mm-hmm. teg ko fële. man loolu laa remarqué ci suñu société. je pense que moo indi beaucoup de beaucoup d'amalgame. waaw li ñuy dund de nos xam nga Eva gis nga mooy damay dellu si ci li ma la sànq xam nga ban problème la ñu am mooy dan dul def te yàlla tax. dëgg la loolu rek mooy suñu problème. gis nga lépp ñu ko wëraatee. foofa la ñuy dellu. waa suukaru koor bi ngay joxe ngir bañ kàddu la wax yow. ngir bañ ñu xasee la ko ngir bañ kàddu guñu la wax tax nga dem leb mbaa nga dem dugg ci yoo xamante ni pour dara pour joxe suukaru koor dong ngir ëllëg kenn bañ ma koo xase est-ce que xam nga ni li nga joxe yëpp amoo ci yàlla. dëgg la mm-hmm. amul yiw. mais am nga ci sac Ousmane Oustaz. Oh, ban sac. am nga ci sac léegi ñaataa fi joxe woon suukaru koor bi ñu tasee dégguñu ko. <laughs> waaw mais am nga ci sakk rek. non yow suñu xeeti sëy yi xew sax daa daa jarul yenn yi de. ay sëy yu ñuy takk décembre. mu tas janvier mars avril ñu xuloo mais nga yem sa kër bàyyi. juin ñaan baat. juillet ñu may la ko. ut nga ut nga jël sa nga dugg ci réseaux sociaux yi fu ne nga photo. de maa ngi lay nuyu de passage ah, je suis libre. maa ngi lay nuyu maa ngi lay nuyu. <laughs> Eva Eva amati wax dara tey wax dara. li ma bëgg a ñaan jàll rek. <laughs> Ah, li ma li wax ci biir wax ji mooy. maanaam <laughs> suñuy jëf. Mm. nanu koy def te yàlla tax. gis nga Eva. Mm. wallahi su ma yëkkatee ñaar téeméer jox la ko te yàlla tax. Mm. may keneen yëkkati milliard jox la ko ngir leneen sama ñaar téeméer yi la yàlla bind yiw mooy gën a barkeel yàlla koy mhm. moom lay bind yiw parce que yàlla xoolul lu bari li li li mu xool mooy li mu tax moom Seydina Ali ibn bi Talib dafa xeex ak benn yéeféer ba war koo rey jekku ko mhm. yéeféer bi ni xaax ni ko tif ci kanam ci gàttal Omar ibn Ludd mhm. te ñi ngi xeex une lañ tàmbalee xeex ba dix-huit heures ci bëccëg ba dix gis nga bi mu ko tiflee bi Ali ne bërët Babacar dafa tiit daw ko taal ni ko yow kii li nga am ci moom góor musu koo am ci moom nga dem ba tiim ko war koo rey ngay ngay jóg alim ni ko daf ma tifli te bi ma tiflee yëg naa ci sama xol ni su ma ko rayee dootuma ko rey te yàlla tax sama xol yëkkatiku na su ma ko reyoon rek dinaa ko rey ngir lim ma tifli te kii dama koo bëgg a rey te yàlla rek tax dégg nga te loolu la ko yàlla defal da koo mujj rey te yàlla rek tax oh. ñun nag boobu problème la ñu am mooy suñuy jëf yàlla dadul tax te gis nga jëf bu yàlla taxul wallahi nit lépp lu mu def di ko rëccu yàlla sant ko ko waaw yaw saas loolu kon jéeg ji la war a ñaax wala goro yi nga xamante ni nii ñooy xas jéeg ji tamit ñoom ñëpp gis nga xaste Bella daa warul kenn mën na yëngal sëy mën na tas nga euh, euh, euh, Bella xam nga sëy bu fekkente ni ban koy takk daa yang lu ko tas day yomb <laughs> lan mooy sëy bu yang xam nga luy sëy bu yang mm. suñuy ngoro du ñor duñ jël temps ah, mais oustaz tamit loolu dëgg mën na nekk loo xamante ni c'est normal parce que jamonoy tey gis nañu góor